toujours dans votre acte du jour de ce 25 septembre 2024 une fa jógee dañuy dem seeta ji ci collectif des transporteurs ginnaaw accident yu bari jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci secteur du transport ñii di transporteurs yi daal mere nañu ba furtu kii nga xamante ni le ministre El Malik, Ndiaye ginnaaw ay kàddu yoo xamante ni mi ngi koy yëkkati te tegginiwul benn yoon di ko teg ci ndordu ñi nga xamante ni mat nañ ko bàyyi ñi mat ko maam nañu déglu ci regroupement des transporteurs seen kàddu lim wax barki démb sa jam ñaajo wax na lu ko pire ndax wax na ni chauffeur yi dañoo ëppal chauffeur yi dañoo tiit chauffeur yi dañuy naan deret loolu man kenn du ko wax sama romi yi sama rom sa doog ko waxootuma laan sa moroom yi dogal nak mani ko eh, deret mom ku koy nan ci niñu ko dem lañ lay tek mais al malik dama ko ni bul dee dama yow no xor nga parce que fula deret tax nga nga mar ko ñun nag ñu wax ni duñu xeex ak moom rek ci transport mais dinañu xeex ak moom it ci beneen façon parce que xeex dóor la ak matt ak padd tey jii nag ñu daje boole si élection législative yii ñu jublu dama wax ni assemblée national ay jinne néewuñu fa ay malaayika néewuñu fa ay nit ñoo fa nekk nun nag ñu jàpp ni la fa yóbbu nit ñi mën nañu faa yóbbu ñun transport ak ñi nga xam te ne gëm te dañuy ay transporteur te nag dama laa wax nag ni ñun transporteurs yi ñoo fi daje fi mais ay nit a ngi dox si Sénégal ñoo xam du ñuy transporteur li ñu nekk dinañ ñu fi fekk parce que jamono léegi bi nit ñi ku dëggu la ñu bëgg te ñun yaakaar nañ ni li ñuy wax moo nekk suñu moo tax mouvement bi ñu créé sax boo ko dégloo xam ni mouvement bu am solo la mouvement bu ñëpp war a jàpp mooy dañu wax ni mouvement bi laab la ñu ko tuddee ak fal ko waaye bi laab sax fas moom la ñuy yëf si gémmiñam te réew mi dafa toll boo xam ni ku ñu ko dénkati war nañu teg làmb boo xam ne boo bëggee mam ñu téye la. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yooyu su dee noonu la ko waxee nañ jàpp ni ay kàddu yu ñàkk teggin la jëmale ko ci ndaw boo xamante ni dañ la dénk alalu réew mi soo demee ba nga xamante ni say moroomu bàyyi say moroomu maam nga ne ñii dañoo tiit ñii dañoo ëppal ñii dañoo naan deret te naan ko to deret ñen lañ ko xamee mooy ay dëmm su ñu demee ba ministre di yëkkati kàddu yooyu yaakaar naa ni war nañu xoolaat bu baax seen communication plus particulièrement ki nga xamante ni moo fi nekkoon chargé de communication parti Pastef donc tey Pastef seen communication su baaxul warul bett kenn ndaxte ki ko jiite tey moom la ñu dénk dénk lii nga xamante ne mooy ministère bi nga xamante ne sénégalais yépp ko bokk mu yëkkati ay kàddu yu ñaaw daal di koy teg waaye ñii di regroupement des transporteurs delloo woon nañ ko ko xamal nañ ko daal moom mooy nooxoor ndaxte ba mu nekkee ci bopp li nga xamante ne mooy ministère des transports ba tey jii gis nañu nit ñi nu ñuy faatoo comme ay weñ ci tali bi deret baa ngi tuuru saa su ne en tout cas muy ay kàddu yoo xamante ni moom mii di El Malick Ndiaye bi fi Mansour Fay nekkee yëkkati woon na ay kàddu pareil ba xamal ni que Mansour Fay jiguñu dafa ay gaaf moo tax accident yi di am yàlla fayaat ko bor bi ci biir li nga xamante ne mooy am yàlla jël accident yi multiplier ko par dix teg ko ci ndodam au mu wut solution xool nu ngi koy saafara moom mi da doon wax mais dafa dem di jëm baaraamu tuuma ñii nga xamante ne ay moromu baayam lañu ñii nga xamante ne ba ñuy liggéey amaana moom peut-être ma ca école ya di jàng ba ñuy jënd seen i oto di def transport moom kenn xalaatul woon sax ndax dina ñëw nekk ci ministère ñu gën ko tekk ci Sénégal mu dem taxaw di naan ñi ay naankatu dara lañu en tout cas ni en tout cas tontu nañu kii di El Malick Ndiaye te bi bi ñu jëm yaakaar naa ne danañ am beneen moyen boo xamante ni mën nañ ko campagne lu dul taxaw ak chauffeur yi ñi nga taxawoon nga ne da di naan deret maanaam da ngeen ëppal da tiit est sañ nga dem ci ñoom di leen laaj ñi nga xamante ni mooy seen kàddu pour que ñu jox la carte pour que nga am majorité foofu ca assemblée nationale